waaw ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay macha allah di wax ni bis bi dafa nekk bis boo nga xamante ne day bisu kilifa di jàmbaari Serigne Touba liggéey ci yoon bi ah ñun am suñuy mbokki wóllëre yoo nga xamante ne nekk nañ fi saa bu jotee ñu nu koy yëgal ñuy ñëw ndax ñoo bokk lépp lii tamit di bis bu rëy mhm, mhm. di boo nee waa kër Seydi Hadji Malick ni waa mhm. kër Maam Borom Touba ah euh, kon bu nu xewlee ñu fekkalante dina rafet te sëriñ bi dafa wax ni fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walam yahida comme que amul benn yoon bu ñuy jàpp boo xamante ni boo ci jàppee ci yonent bi la jëm kon yoon yëpp ñoo baax ñu ñaan ku ci nekk rek fa nga jàpp yal na la yàlla yeggale nga sës rek ci yonent di ñaan bis bi yal na ko yàlla gën a jëmale kanam ñu ngi am kontaan ci teewaay gi mm-hmm. di am kontaan ci ñëw bi ndax yokkute lañ ci gis lan bi waaw waaw bis bi day moom li ñu fi indi daanaka dañ cee bokk moom li ñu ci indi daanaka li ci jiitu mooy dañ cee bokk ndax ñun ñoo ngi dëkk fii dëkk bi ñuy wax ñax fi lañ dëkk te it yàlla dogal na it suñu wasila mi ngi fii muy sëriñ Mut Sey Njaay euh, loolu ci li ñu fi jokk indi la bokk macha allah euh, li ci des it kóllëre la ndax wax dëgg yàlla ay xarit ak ay am di jàmm rek lañu fi am ak ñoo xamante ne bi it sëñ Tuubaa dañoo boole Euh, lu mel ni yéen ñii nga xam ne wax dëgg yàlla dinañuy dajalu bari ci liggéey yu mel nii euh, ngeen wóoluñu ci bu baax it li ciy def loolu bare bari kon mel ni taxawaay yu baree bari nga taxaw waaye ban taxawaay nga gën a fese ci bis bi bis tedd bi waaw taxawaay bi ñu ci gën a fësal de moom mooy xam naa wàllu média bi ñuy yëngu rek ndax yàlla dafa dogal ñu yor plateforme bu ñuy wax M-Media Group mu lëkkale euh, chaîne bi nga xam ne mooy chaîne principale moom ci diine rek commencé ci sëñ bi yem ci sëñ bi mooy Mouride TV HD. lan nga gisee communication bi nga xamante ne bi moo am ci euh, média média Lambaye waaw communication bi day moom xam naa dañ ciy gën a sant rek ndax dafay mel ni ay at ci ginnaaw xawoon naa gën a jafe waaye nag fi mu ne nii mi ngi gën di yaatu. te it loolu communication moom dafa bokk ci lépp loo xamante ne bii dañ koy taxawal rek rawatina ndaje yu mel ni communication def ci baax lu ko lu jiitu bis bi mhm. bis bi ak bu bis bi jàllee mhm. ndax dafay am message bi fu bari foo xamante ne bi dafa war a yegg mhm. te communication rek moo ko fa war a yóbbu sant yàlla sant yonent bi sant sëñ Babacar mi waral màggal gi ndax man maa nga jóge Bambey. Bambey macha allah. sama baay. Mhm. muy euh, sëñ Mortala Ndiaye. Mhm. taalibe bépp sëñ Bay Cargaan. Mhm. ginnaaw yàlla moo tax ma teew ci bis bii. macha allah macha waa kër sëñ Basiru la waaye sama baay. macha allah bi nga xayee ni waa kër sëñ Bay Cargaan. moom moo tax ginnaaw yàlla ma teew ci bis bi ak jëmmi borom bis bi di ko màggal di yëg loo xam ne nii waat naa ci sëriñ Touba moom moom moom lii sëñ Touba rek ko man di sant rek uh-huh. di ñaan uh-huh. ah teew ko ay ati ati ati ati at uh-huh. kàttanal yàlla ak yonent bi ak barke Cheikh Babacar Ndiaye Diargane amiin maa ngi dugg Talla Ndong Talla Ndong suñu Talla Ndong ginnaaw ba nuyu ziara ndokkee la ci bis tedd bi waaw lan moo waral sa teewaay ci bis bi waaw maanaam ni nga ko yëgee rek laa ko yëgee ci bis bu bu mag bii ndax bésab Cheikh Babacar Ndiaye Diargane ci Poléek ci tu Lambaay tund Lambaay ak Serigne Mor Maane Mbaye ak euh, sëñ Aliou Diouf ak sëñ Thierno Diouf Lambaay ku dëkk Lambaay rek yëngu ku dëkk di yëngu ko parce que bés yooyu da doon doon bés yu màgg màgg màgg ci biir làmbaay mhm. rëy lool ba muy ñëw nun ñii kenn ku ne dootoo xamante looy def lu bés bi mhm. ci barke Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane sëñ Fallou Ndiaye sëñ Amdi Ndiaye njaboot ak Cheikh Babacar Thiergane ñëpp ñu ngi leen di siyaar te xam ne bés bi niñ ko yëgee ñun ñëpp ñu leen ko yëgee kenn ku nekk yaa ngi jóge béréb di ñëw ci bes bi bés bi dafa rëy ci noonu ndax man sama maam ci boppam sëñ Ablaye Ndong bokk na ci ñi sëñ Mbaye Thiergane yónni woon xomaak ci sëñ Touba damaa toog nii ak tudd laa man mënatumaa toog ndax yëg-yëg bi ma ci yëg ci Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane moo tax ñu ñëw ci bés bi ah, li may euh, jàllale ci bés bi rek li nga xam ne mooy ndaw mbokki bi yi fi teew maanaam fii moom day bérébam ñaar nga xam ne Serigne Touba xaadalahu lahu maxtaaralahu bi nga xam ne moom euh, buy wootee màggal fee ca Touba day wax ne da ngeen jàng alquranu karim jàng xasaayidu Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul di bernde maanaam nag muy ñaari fànn yoo xam ne képp koo xam ne ñëw na fi te suñ borom dimbal la nga mën a jàng li nga xam ne mooy alxuraan mën nga cee góorgóorlu euh, sa kemt lay kattan ndax bis la boo xam ne euh, boo laajoon ñi nga xam ne ñooy ñi faatu tey dañuy bëgg daw waat dikkaat fii nga xam ne mooy béréb bii ngir euh, xeeñtu fi lu baax ndax sëñ Tuubaa moo ñu wax ne fa arxabul asiya ila li amwaati rado ila dunia maal xayaati wala suwayaatan li yaalamu saalihatan tadfaahum in xafalu kon nag comme que dañ fi dañ fee desandi rek da maanaam dañ fee desandi demaguñu nañ gën a góorgóorlu ci bis yu nga xam ne suñ fi ñëwee góorgóorlu ci jàng alxuraan boole jeeg di xidma santaat yàlla bu baax suñ suñ borom subhaanahu wa taala ndax ci eh, xéewal gi mu ñu defal ndax wax dëgg yàlla ku mel ni sëñ Babacar Ndiaye Dergan sëriñ Aliou Diouf Lambaye sëriñ Mamar Mané ñooñu yaakaar naa bu doon doon ñoom rek tund bawol waxuma la tund mexey waaye tund bawol laay wax rek d'une manière générale dina doon tund woo xam ne wu doy doy waar la ndax ku ne xam na ne bu njëkk ni ni fi ni fi lislaam melan diine mel ko nii waaye ba ñëwee samp seen i taal rek mbooleem koo xam ne yaa ngi doon xool jeneer bi di eh, eh, leerlu ci seen ak leer yaa yàlla bi suñu borom mi ngi lay may taw tawfeex bis bi ku gis bis bi ni mel tey ji nga xam ne liggéeyal lislaam rek moo wér nga xam ne liggéeyal lislaam moo wér nga xam ne Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane la mu xartu woon ba dem Sëñ Tuubaa tey Sëñ Tuubaa fa fay na ko lu ëpp lu lu mu yaakaaran loolu te bis bi boo gisee ni mu yokkee ren daaw melutoon nii man mii daaw bi may dugg côté bële laa duggeewoon mais bi may dugg si dëkk bi laa xam ne nag il faut ma wiiri pour mën dem ndax embouteillage oto yi macha allah xam nga loolu kon euh, sant yàlla lay doon ti di leen ñaanal di ñaanal ki fi nekk xalifaam bi tamit mhm. suñ borom euh, gën ko fee yàggal mhm. message bi may ciy jàllale rek mooy yokk ndaw yi mhm. ñu góor góorlu ndax lii nii duy caaxaan te ay mag a ko fi defoon mhm, mhm. gone yi nag góor góorgóorloo mhm, topp ci tànki mag yi fi jaaroon lu raw lii deen ko am ndax gone mooy tabaxam réew te gis nañ gone yi sax même jàmbaar lan loolu mobilisation bi gone yi def wax dëgg yàlla jàmbaar lan mais nag ñu yokk waaw góor taw teewut nga gën a waaxo macha allah maaleykum salaam wa rahmatulah Ibrahima laa tudd dëkk Makata Sarr damaa xëy boobaa laa xëyee ñëw ci bis bi Cheikh Babacar Sarr ndax ñun mooy suñu lépp. lambaay ji fa lislaam taxee Cheikh Babacar Thiergane a tax. ba muy dem Serigne Touba yaakaar naa ne booba lambaay gi. ceddoo fi saxan mandi fi. moo dem Serigne Touba. jëlee lu fa xéewal gi andi ñu ko man sans waajur. Mbay Ndiaye màkk di ko wax waa waa Mexe ñu koy wax Mbay màkk moom lañ dëkk tuddi Cheikh Babacar Thiergane. macha allah kon amuñu loolu Cheikh Babacar Thiergane. wallaahi tax ñu ñëw ci bis bi. waaw yëg bi de moom mooy xam ne li liggéeyee leen Serigne Touba. Mhm. ba topp ko. Mhm. moom day màgg feeñ na. Mhm. ndax euh, ku ñëw tey ci bis di nga xam ne. liggéeyal yàlla rek am solo. liggéeyal yàlla mooy liggéeyal Serigne tubaa ni ko seex mu Cheikh Mamadou Mountakha di waxee. mooy liggéeyal yàlla. kon nag maanaam bis bis bi tey ku fi ñëw. di nga xamante ne ba mu ko doon woote. ba ba nga koy jëkk di woote la léegi. wute na lool man mii sareet laa daan takk di fi ñëw. daanaa dox di fi ñëw ba ba mën a yeb sareet di dox di fi ñëw kon nag. tey jii ku fi ñëw di nga xam lu baax rek am solo. ñun de Dakar lañ jógee. Mhm. di leen sant rek di leen gërëm. Mhm. di ñaan yàlla rek màggal gi yàlla nañ ko teewoo ay de déwéni déwén. amiin amiin amiin lii lépp sëñ Touba moo ko waral. Mhm, ndax sëñ Baye gaan moo toppoon sëñ Touba. macha allah ba lii am ci tey. noo ngi sant ñëpp di sant waa mi xëy gépp di gërëm ñëpp. di ñaanal ñëpp jàmm. di ñaan rek lépp sembu bi nga xam ne sëñ Baye Thiergane moo ko fi bàyyi yàlla mhm. yeggale ko mhm. ni di ko màggal ay déwéni déwéni déwéni déwén mhm. dund ba sunuy set fekke ko di ko màggal di ñaan ci yàlla rek bis bi yàlla bu mu fi doon sunu mujj di màggal yal na na ko fi màggal at yu baree baree baree bari di ñaanal sëñ Mbay Cargaan fa mu nekk yal na yàlla yokk leeram yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ya gën a ndax lii lépp nag moom la di ñaanal sëñ Fallou Ndiaye yal na yàlla def bu yàgg di màggal màggal gi ba bi ay sëtama ki sëtama ah, aw ko ba di ko màggalaat ñaan nañ ko yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla di julli ci yonent bi di sant seexul xadim nga xam ne lii lépp moom la macha allah seexul xadim yal nañ ko yàlla fayal amiin amiin amiin amiin seex Babacar ndax lambaay ku ne na njaram lambaay te seex Babacar Cargaan Njaay moo ko fi jële ak seex Aliou Diouf Lamba ak seen moom maama yal na yàlla yokk seen i leer yóbbu leen ci àjjana ya gën a kawe seen njaboot gi ñu fi bàyyi muy seen i sët yal na yàlla ba ci ba ci gën di njaboot ka muy góor ñi muy jigéen ñi barke Seexu Xadim barke sëñ Bay Carga Cheikh Babacar ñëpp a ko bokk te ginnaaw bu yàlla wéyee mhm. tàgge bu ne am na jàppal liw mhm. ñëpp baax na ñëpp def waaye nun suñu xitali ko mhm. ak suñu xam dëggi dëggi dëggi gëddaay sëñ Touba ci Cheikh Babacar la ndax jàng nañ ko ci gisaawu sàkko suñuy bàyyi nittali nañu ko ndax sama bàyyi wax na ma ne 1835 la feeñ jamono 1835 la feeñ jamono 1935 la wàccab liggéey dund ne téeméeraat at loolu lépp sama baay wax na ma ko jëlee ko ci maanaam ndeyam mhm. mu ne ko ndax sama ndey jooju ma lay wax mhm. Cheikh Babacar ko yor ba ni mu liggéey ñu denc ko fee ca sanc saar fañ denc bàyyi ca macha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mhm. ah, di leen siyaar bu baax ah, di wax na rek bis bi waaw ah, dama fee dama dëkk dëkk bi dama fee dëkk waaw sama muy sama muy sama lépp waaw ma jógee ba Daaru Salaam doy li ñëw fi ngir teewe bis bi ndax bis bi day bisu borom ngërëm bis boo xam ne borom dafa liggéeyal Serigne Touba ba Serigne Touba gërëm ko digal ko mu mu mu nekkoon fi dëkk bi dafa liggéeyal suñu borom ba ba yàlla dogal mu bàyyi koo fi delluwaat dëkk boobu ñu wax mayal ah, sancaat ko ci ndigalu Serigne Touba ah, defal jaamu yàlla dafa liggéey ba ba ba suñ borom dogal ci moom li mu dogal ci moom waaw loolu daal mooy li nga xam ne. Mhm. moo sedd suñu xol. Mhm. ak bokk gi ñu ci bokk. Mhm. Euh, tànk yooyu lañuy ñuy xañtu. ba ñëw ba egsi fi. Euh, fas yéene ànd ak ñoom. màggal ko ci gën gaa rafetu anam. waaw ñi nga xam ne daal bis bii. bis la boo xam ne bisu borom gërëm la. te lépp loo xam ne nit a koy sàkku. war na ko ci lu baax war na koo mën a jëlee ci bis bii. waaw ñuy gën a dénk taalibe yi rek. ñu gën koo fonk du jàpp ko ak seen fukki loxo. te te bañ koo woyofal. ndax euh, mbir moo xam ne moom boo ko jëlee lu diis la boo ko woyofalee mhm. yaay woyof rek waaye waaw borom bis moom suñu boroom jox na ko ay garaat jox ko ay ba yoo xam ne boo mhm. ko woyofal mbiram it mbiram woyofut mhm. kon ni ñëpp euh, fonk ci bu wóor a wóor mu gën a jëm kanam rek ne ko Cheikh Mouhamadou mu di waxe waaw mbir mi moom boo ci nekkee nekk ci nañ ci war a nekkee waaw waaw day gën a yàgg te gën a neex rek. waaw ba àjjana rek. ba àjjana waaw waaw. Mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu leen di nuyu di leen ziar te di leen ndokkeel bu baax a baax ci bis bu tedd bi ñu nekk. Mhm. bis bi nag li ko waral moom mën nañ ne du lu lu loo xamante ne lu nit di laaj la ndax lu ñëpp xam la loo xamante ne képp koo xamante ne rek dëkk nga ci réew mi. te di ab julit rawatina nga aju ci yoonu murit mhm. xam nga kan mooy Cheikh Babacar Thiergane ndax ci taalibe yu mag yi la bokk mhm. ci taalibe yi nga xamante ne tamit dañoo laxasaayu woon jóge bàyyi ko woon fii ci làmbay mhm. fekk Serigne Touba euh, ci Jurbel ngir fàggu fa loo xamante ne day jariñ doomu aadama yi nga xamante ne ñoom lañ bàyyi ginnaaw te jaboote leen nga xamante ne ñoom ñoo nekkan ci làmbay doonoon ay jullit waaye doonoon ñoo xamante ne tamit mhm. ñu yàgg bëgg lu baax lan mhm. ñu yàgg a bay ci toolu islaam mhm. bu ñu delloo rek ci mbindum Serigne Touba radiyallahu anhu euh, ci ni ñu war a fàttalikoo juddug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu tuddee gàmm dafa waxoon ne gàmmu bisu jaamu yàlla la bis la boo xamante ne tam bisu def lu baax la bisu fàggu aw yiw la waaye nag ku koy def itam na nga fexe teg ko ci sunna mooy tansimuhu bi sunnati naa lil jannati bi hisdiyaadul minnati li muxlisin muazimi macha allah loolu nag buñ ko déggee kon dañuy xam ne bis bi màggal ko mooy fexe lépp tegu ci alxuraan tegu ci sunna ñu jàpp ñu xam ne lépp tam jaamu yàlla la mhm. ndax dañuy wax ne bis yu demee nii mhm. ñaari façon bendeel moo ci am uh-huh. mooy bendeel ruux ak bendeel jëmm uh-huh. Uh-huh. bu dee bendeel jëmm yi mooy fexe lépp lu jëm ci wàllu xiiwal mu mat ci wàllu lekk ak wàllu noon waaye bendeel ruux yi nag mooy fexe dundal ko ci alxuraan dundal ko ci xasida waaye dundal ko tamit ci tur yàlla te gis gis nañ ne taxaw bis bu mel nii saa bu ëgsee ci fii ci Mekhe Lambaye mhm. gis nañ ne mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo yore lu jëm ci wàllu woowu mhm. dinañ ci góorgóorlu bu baax a baax ndax ñu xëyee rek suba teel mhm. ci la ñuy tàmmali di jàng alxuraan buñ ca noppee jàng xasida tudd yàlla loolu lañuy ñuy yendoo ba ngoon jot kon loolu daal jàpp nañ ne li ëpp solo ci bis bi moom loolu mooy loolu mooy taxawaay ndax dañuy wax ne ku mu a doon rek muy koo xamante ne dañ koo xàmmee ci àdduna jamono bi muy dund ci lay yem mhm. waaye bu dee nitu yàlla nag ab liggéeyam mhm. bu wonee ginaaw ci lay gën a feeñ loolu nag euh, li ci am solo mooy mhm. ñi ko bàyyeel xam li ñu leen bàyyeel lan la ndax olof day wax ne am ko te xamoo ko bañ ko am moo ko gën mooy fexe ba kon li ñu am ñu xam ko téye ko li koy téye nag mooy fexe ba xeeñtu doxinu sëñ bi ak ay bëgg-bëggam te baabu euh, Babacar moom kenn ku nekk xam na ne ay bëgg-bëggam du lenn du diine islam ak Serigne Touba ak yonte bi sallallahu alayhi wa ñu fexe loolu dundal ko te buñ koy dundal itam ñu fexe teg ko ci xam-xam ndax sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu day wax ne lépp lu waay di def rek na fexey jiital xam-xam ndax koo xamante ne day jëf te jiitalul xam-xam moo ko bàyyi ba pënd bi di naaw ngay ngay jëli suuf ñooyam kon dañuy fexe ba dundal euh, li fi Seex Babacar bàyyi woon ci li ñuy tuddee at turaasul almi mooy loo xamante ne culture islamique la muy loo xamante ne culture la tam ci wàllu yoonu murit mhm. waaye loo xamante ne tamit culture la ci mhm. buñ ko mënee wax lu particularité ci Cheikh Babacar Thiergane ndax xam nañ ne ay jaar-jaaram lépp diine la mhm. ci fa mu tàmbalee ci ay waajuram yu baax ba ni mu gisante ak yonente bi lépp xam nañ ne moom ak mbaax rek ci lañ ko mas a xam ci la mas a dund kon ñu ngi dénk daal mbokk yi ñu xam ne bis yi suñ ci ñëwee dundal ko niñ ko war a dundalee dañoo war a fexe nag bu ñu fi jógee mu jeexee tal ci ñun mooy yóbbaale loo xamante ne ba déwén mhm. loolu daf ñuy jariñ ci mhm. suñu diine mhm. daf ñuy jariñ ci suñu jikko daf ñuy jariñ ci ni ñuy jëflante ak doomu aadama yi mais daf ñuy jariñ tam ci fu ñu toll rek di gën di bëgg lu baax di gën di bëgg yoonu Seex Ahmadou Khadim waaye di gën di sonn tam ngir yow ngir Seex Ababacar li mu fi bàyyi bañ a nax saay waaw dëkk bi moom man ni ma koy waxee chaque jour mexe moom gën yokk maanaam pas-pas bi daal da nga ko yëg daal mhm. ndax ñoom dund gi ñu dund sëriñ bi mhm. te loolu moom mooy lépp mhm. waaw man loolu moom lu ma yàgg wax la dama naan mexe moom bokk na yi ma neex ndax dañuy dund sëriñ bi waaw te loolu mooy mooy leen di sant ma ñëwee fekk lépp wax dëgg yàlla suñu borom def ci lu kawe suñu jot ndax nekk a nekk rek waaye bu a nekk la ci la ci war a dem moom am lu may fàttali naa ma dañ daan toog booba kenn amagu soxna ci yu yéen mag ñi nga naa ma ah bu leen ci am leen lu di xalaat de bu soobee Seexul Xadim yéen ñëpp di ngeen am ay soxna yu kawe seen jot léegi leen bu koy toog de ma ko loolu day nan nekk fu nu nekk rek sëñ moom jekk na ba pare la ca des ci ñun la rek mhm. fu nu egg fu taxawee barke Seexul nanu jekk rek ab soldat nag moom toujours day jekk mhm. Mhm. amul maa ngi waajaat déedéet toujours présent la te màggal gii de nan ko yàlla nañ boole ci ña koy def ay ati ati ati ati at ci sunu kam ci barke Cheikh Olam sama xol sedd na guy waaw bis bu tedd bi de li tax mënuñu cee ñàkk a teew ñun ñëpp mooy suñ jàmbaar ji Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane képp ku dëkk Lambaye amel nga ko njukkal ndax dafa jaayan ngorom jaay léppam jaay room jaay léppam ngir Sëñ Tuubaa ak lislaam taxaw fii ci Lambaye kon tey ñun amu ñu ko duñ ko mën a faye lu lu jiima teew ci bis bi rek di ci def kéem tolluwaay kàttan leen ci man ndax nit bu la lebalee loo ko mënta fayee. xew xewlee war ngaa ñëw ne ko waaw góor kese leen ko ma ne ndax de Cheikh Babacar. lim lebale woon Serigne Touba yàlla fay na ko. ndax boo gisee dëkk bi ni mu mel. Mhm. nga xam ne cant yàlla moo war ñun ñëpp. ñun taalibe yi ne liñ ko mën a njukkal. Mhm. mooy li mu bëggoon ba tax mu mhm. defoon ko ngir jaay bakkanam. ñu sax ci daat loolu def lu dul loolu dañuy rol suñu bopp. amuñu fi lu ëpp topp Serigne Touba. te moom Cheikh Babacar kenn mënu ko fay xanaa ñaan yàlla dolli koy xéwal ak tawféex mm-hmm. ak ngërëma Sëriñ Tuubaa mi mu doon liggéeyal mm-hmm. man la Mbaye Awa Ndiaye doomi soxna Serigne Modou Koumba Ndiaye mm-hmm. ak soxna Ndjële Yacine di settu Cheikh Ibrahima Tikka Ndiaye fekk Makata Sarr ah. bis bu nekk nekk lan daan ñëw de waaye bis bi da si rawati ndax dañoo dajeeg ñëw dajeek suñu yaakaar tey ak ëllëg muy Serigne Moustapha Mouhamed moom seriñ Mbacke Soxna Lo kon ñu ngi ci am mbégte bu baax a baax a baax mexe nag ñun dañ see bokk kenn gënuñu see yey ndax sunu maam ju baax ja Cheikh Ibrahima Tikka Ndiaye dafa neen dan rek Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane ba tey lii mu am tey mu am ko mu di xeetam di jarbaatam di doomam di léppam ñu mu safoon ko lool lool lool ba daa daan ñëw fii sax di fi tant di màggal Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane kon njaboot gépp suñu àndee tey ñu ànd ak sunu kilifa muy suñu baay Moudou Fall ak sunu baay e, Serigne Khadim Ndiaye mi Cheikh Ibrahima ànd ak sëriñ Dambay jëwriñ nga xam ne mu yor kaddu yoon kaddu yoonu wa sama Ah, kon ñun su ñëwee fii suñu joxee kàddu neen ci bëgg lool dañ ci neen ci am mbégte dañ si am yaakaar trop mm-hmm. ndax ah, buntu kër yëpp lañ war a dugg waaye ñu ngi taxaw tey ci bar buntu kër sëñ Moustapha Ndiaye moom sëñ eh, Cheikh Ndela eh, ben fa duggee tamit siyaare ji nañ sëñ Fallou Ndiaye siyaare ji nañ sëriñ Cheikh Ndiaye Thiergane siyaare nañ képp koo xam te ne bii eh, meññ no si Cheikh Ababacar Ndiaye Thiergane ndax sunu lemee rek dañuy jum mbaa dañu matal te sunu tànk fu ñu ko teg rek mel na ni fu ñu tegee ko sëñ am di rek teg nañ ko si meex yi gépp ndax dañ fee bokk nag mhm. jëriñ ji yor liggéey bi sax mhm. démb la noonu tey soog a ñëw kon suñu joxee mekko pour ñu wax rek mhm. dañuy sañ wax kon ñu ngi jaajëfal ñëpp sant ñëpp di gërëm ñëpp waay ñaan daal yàlla na ko fi yàlla defal ci barkeb Cheikh Babacar Ndiaye ci Yargaan barkeb Cheikh Ibrahima Tëgg Ndiaye dégg nañ ci màggal gi lool suñu xol sedd na si tey nag da see raw ndax Cheikh Moustapha Mouhamed jërëjëf waaw salaam wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mbooleem ku bokk ci njabootek Cheikh Babacar Ndiaye ci Yargaan rek di am mbégte bu baax a baax rawatina ci bés bu tedd bi muy juróomi fan ci kori nga xam ne maanaam ci la ñuy fàttaliku sunu jàmbaar ja jàmbaar ju baax la euh, di wax rek ne ñu ngi sant bu baax a baax waa moom ni ko nit yàlla ñëpp di ame rek Cheikh Babacar Ndiaye Thiergane moom dafa jaar fa góor yàlla yëpp jaar waaw jaar jaar fa am am jaar jaar boo xam ne nii maanaam moo ko may lii moo ko may lii ndax doon na koo xam ne mhm. euh, l'islam mhm. ku ko teel a ñor la ku ko teel a ñor la te yitteem tamit lu kawe la ndax maanaam mbir yëpp mi ngi dellu ci yitte maanaam yitteem ju kawe mhm. tey jii maanaam moo ko may lii ndax uh, kera ba mu gisee ak uh, Cheikh Boubacar Cissé mhm. e, nemmiku ci moom leeru lislaam ak mhm. xam-xam ak alxuraan ci la ko teg bët xam ne moom lii kii nii la mu bëgg ëllëg tey ca làmbaay jàpp na ni dina ko mën a am ci moom mu teg ko bët rek ba yëgoog moom ba ànd ak moom dem ca euh, euh, dëkkam boobee ñu di ko wax ñaamina ba am fa diir ba mu fa am ñu ne juróom-ñaari at lépp lu mu war a xam lu mu xam ko fa mhm. euh, jàng fa alxuraan jàng fa xam-xam tarbiyewu fa ba mhm. amee ngërëmam mhm. dellu si ba mu dellu see noonu rek ci la tàmbalee jafal jafal lislaam ci Lambaay ci jamono jooju laata muy gisee ak Cheikh Ahmadul Khadim ci la ko ay mbokkam tàmbalee nangul tàmbali koo déggal euh, mu tàmbalee leeral lislaam waaye itte ju mag jooju nga xam ne nii tamit ci la nekkoon maanaam euh, deñut di continuer ànd ak joxoñ boo xam ne nii maanaam kilifaam gu tedd ga muy Cheikh Boubacar ji Cissé joxoñan na ko mm-hmm. waaw ba ba mu continuer itteem jooju